benn kilifa bu may waxal boo xam ne aji xam na turam xamoo tax suba xamoo aji kan waxal xamoo aji mën na toog fenn gis sa diggante ak say nit yow baax na bu ko bul duggati man musuma présenté aji benn kilifa bu ma xam musuma ci dugg aji nu ma mën def ba am ci nit ñi xaalis dossier beeg yeneen elle s'en Françoise Hélène live barki démb Françoise kilifa yi mu xam yëpp moo tax man aji di photo wu di vidéo wu nekk ci salle de bain di photo ay photo yu sexy di di xooy ne ko man dama laa di la jàppale mais intéressé la woon aji même vidéo yi def di ko envoyé Cheikh Gadiaga tas na ci réew mi nekk ci salle de bain di filmé wu di charmé wu di way di ko envoyé Cheikh Gadiaga tas na ci réew mi yëpp yow xam nga man gis naa ah Cheikh Amar de ànd ak moom ba tey gis na ñu ma def ak Kaliphone ma ko mos naa la dóor mu ma déedéet ma ko génnal nga wax ne moom yoonam nekku ci moo moom dafa foog ne li wax Kaliphone moo tax Kaliphone dafa yor preuve ci moom dina wax Kaliphone mën na ñàkk. ku retenir boppam wala Françoise Hélène suba ñu tudd xamul kilifa gu ma xam xamul ku may liggéeyandool ndax lépp laa koy nëbb ndax xam naa jikkoom bu yàggee day day jaat ci suuf ci say nit noonu la ma def ak Mathiam noonu la ma def ak Siaka noonu la ma def ak sama nit yu bëri yu day jël seen numéro jaat ci suuf di leen mbarante du ma ko yëg non yow foofu nga toll mu toog may toog muy wax Mathiam ma laaj Mathiam muy wax Mathiam ci léegi lan moo tax ma ma comprendre li muy doog a ñëw ci man amul woon téléphone naa ko joxoon sama téléphone téléphone bi ma ko joxoon iPhone la woon iPhone bi dafa synchroniser ak sama tablette ak sama ordinateur aji bi mu amee bi mu jëla bi mu amaatee beneen iPhone 12 bi ci la ma delloo sama iPhone 7 bi te xamul ne discussion yi des na ci ci laa comprendre aji li mu doon def yëpp iPhone 7 boobu ba tey ko denc ndax preuve Françoise Hélène ni mu def Mati trois pommes Bamba Kassé Ablaye Der Ablaye Der Françoise Hélène mosul xam ne Ablaye Der xam na aji aji moo nettali yëpp Bamba Kassé Ablaye Der Bougane Gueye Dany fekk ñooñu ñëpp aji moo tudd seen tur Françoise Hélène Françoise Hélène dem live leen xamu ko. ma wax ko Françoise Françoise xam na koy laaj Diop xam ne kilifa la bu chantage laaj laaj laaj Diop mi def Bamba Kassé ak ñeneen ak ñeneen moom it xam nga lan la xam nga jikko at bi mu yàqee Mamoud te Mamoud Diallo wallahi lazim jàppale ko dong la doon def Mamoud Diallo aji moo ne aji moo ne ne ko jàppale ma donc boo xam man dama lay jox conseil comme man li ma def xam nga man bi ma récupéré iPhone bi laa gis conversation yi ci nekkoon yëpp laa xam moom ban genre nit la ndeke moom iPhone bi mu yoroon sama téléphone la kilifa yi ci nekkoon sama xarit yi nekkoon ci góor jéem na duggante ñoom bay mbaraan ñi wala di ëffal ñi ak ak ancienne copine masseuse yi nga ci jël commission am teg te loolu am naa ci ay man tane lépp laa yor gis ay ordonnance am ngi ay copie bi même cachet pharmacie bu ma jëndee damaa ubbi dossier gàncax léegi nag sàmmal sa bopp nga sàmm say nit. Sarr nga gis nga lu naan bitim réew ñëw fii communication internationale bi yëpp maa ko def ndax gëmoon ko ndax yërëmoon ko mais la ma ko yërëmoon gàcce laa am gàcce ak lu metti mais rus naa génn wax ko. ut génn ndaw dafa foogoon dañ ko nax. bu dem sama kër yaay mais loolu waroon na wax ko mais Kaliphone du ko wax non man woo ma a Kaliphone non man man xam nga la man xaw ma ko aji wax mais man Kaliphone dama ko mës a moytu yoon la ñu gisee après li may woo yëpp bëgguma toog ak moom moo tax li jëntu ma lu muy wax bu fekkoon dafa rëcc dem Salif Salif mu demoon foofu kër gi mu demoon sama kër benn xarit la sama xarit bi bu ma France loolu ba këram gi deux mois ma am ay gan yu jógee France ak États-Unis tout le mois de juillet aji ca ga la nekkoon sali këru deux mille mètres carrés tout le mois de juillet biir kër piscine deux mille mètres carrés piscine lépp ci biir kër gi tout le mois du premier au trente juillet fa nekkoon man maa jëloon kër gi juillet août septembre ma am ay gan tubaab parce que ñi may ay ay nasaraan lañu su bëggee dem sali damay àbb sama xarit yi ñu am na ay xarit yu bëri nekkuñu fi ñoo nekkandoo woon France mais ñoom nekkuñu fi ku ma ci soxla sa kër damay jël caabi dem dugg sa kër toog